الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن Thank you. bunları uygulayacak ve çok şey mücadele tarafının belirtilmesi, arasal belirtilmesi, elinden kaynak suları, kandırmak kanı, hoşunları dışarıda ahlaklarımız, bunu kadın hakkında dileğim, bunu uzaktan dileğim, yardım waaye démb bi ñu seetal commentaire ci aéroport bi lu mu wax dañuy daal ci yoon wax dañuy daal ci yoon ñu am tristesse lu mu wax ci alquran dañuy daal ci yoon lu mu wax ci hadith sëriñ dañuy daal ci yoon lépp démb lañ doog ko jàngat imam Sall di commentaire ci waxam ji ne sëñ bi kan la fi dóor moo sori ndax yàlla mu nekk moo xam ne ñëpp seen boo xam ne moom ngeen ñu jéem ci yàlla wala place nekk mooy xam nga woon seen seen faat xëy na ñu yàlla doy seen ñaan ñaan yàlla na ko wér yàlla may ko daal daal toujours bu ñu koy ñaan ci seen wax mooy pour sant si seen am ne yàlla na été ñu si wax wax ñu ñu ñu lay am ñu moo tax am na ci ko tax maa ngi seet ci mbokk nga jàll yàlla yokk wér yàlla yokk xam-xam yàlla yokk ndaw taw bi ba gis bu ñu mën a Cheikh Ibrahima Sall wax wax yàlla moom seen ñu lay seet si sa kër bëgg nañ ne ngir sa personnalité ak sa xam-xam ak sa gis nga taxaw ba sa rajo yi ba gis mu wéy bi ñu lay ñaan di wax yàlla lu wéy bi ñu koy gis farata moo tax waaye bu ñu la lay yëngu bu ñu ko wóoree bu ñu waaye wax naa ko xam-xam moom ñu ko siy fa def teewul ñu ko am ko télévision fekk ko woon naa ko woon naa ko jàpp waaye mu tudd léegi amal daal yéen bu ma joxee ko xam te mu bu dee wala naa ko si nga ko dégg ko ko def man ko dafa dégg ne ko ah ko yàlla yàlla yàlla toog moo tax nit ñi nit ñi waroon ñu leen ñu ñu war a jëkk taxaw bañ bañ bañ ndax ñoom ñu bëgg suñ ñu fii ci réew mi dañuy gis ci biir Dakar dañuy gis ni ñuy rëcc rëcc ko pour rek sax jox loxo waaye gis leen nekkee ci jafe-jafe di mer di bëgg xeex di bëgg def violence kilifa diine ñoo war a njëkk a jóg waxal ñi nga xam ne ñooy àtte sax ci ñoom ñu àtte nga xam ne mooy yoon lépp jaar ci jàmm tekel bile ande baam e baam ndew bile heɓu joñom naa yalla fiya ko yewto waaye ɗi gon gon force ñu ñëwal kenn ku nekk ci ñun waaye yàlla bu mu nekk ne dafay ñëw ci yoonu manifestation yàlla bu mu nekk ne dafay ñëw ci yoonu ray ndax loolu tooñ la te yàlla wax na ci alquran ni min ëddil بنذر ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا mu ne képp képp dundal ko ko ku faat bakkan ci lu duwul bakkan dafa mel ni da ngaa faat ñun ñëpp fekk benn bakkan nga faat mais bakkaar bi dafay mel ni ñëpp ñi nga faat naka noonu boo dundalee dafay la koy indi képp ku ci taxaw ba bu am kooku na jàpp jàpp daan ñëpp képp képp koo xam ne nag wax nga loo xam ne na nga xam ne dafa yow benn bakkan jàppal ne yaa àdduna te rey dafa garaaw bu ëpp ndax yow sallallahu alayhi wa sallam nee na man aana ala rasulillahi wa yuridu ko annama huwa xaar annama xaar mu ne boo dimbalee nit ki mu rey borom ñi tam donte genn wàllu nguur bi ma wax oqtul mooy rey oqtul mooy rey oqtul mooy rey mu ne boo ne oq rek na mat am ku yeete bakkan rek yow ak éggali bakkan ba yéen genn wàllu moom di leen wax kon lii bind ñi àtte nañ bind loo xam ne nit ñi duñ kee nañ àtte loo xam ne nit ñi duñ kee ndax ku nekk bu yëgee jox nañ ko àqam soxlawul duñ kee dafay dem jëlee yonent sallallahu alayhi wa sallam ci la daan ci la daan ci la daan préparé guerre ci ci la daan jàngale ci la daan yare waaye léegi dem nañu ba nga xam ne am na ñoo xam ne sax mu wax wax lu demee nii te ñun fii moom mooy suñu assemblée nationale ñun moom mooy mooy assemblée nationale ñu war a wax attekat dañuy war a àtte yan ngeen leen xëy ñu àtte dëgg ak ñu mën di toog ñi àgg ci ñoom bëri yàlla na leen yàlla may taw bi ñu ko taw yàlla nañu bàyyi ñoom Sénégal yi ci taw may na leen fukki nit ak dara ci mois de mars lañu ba léegi ah dafa garaaw léegi taxaw ñu kenn ni kii moo rey tey kii moo rey tey kii moo rey ñu ngi topp kenn koo xam ne ca ca ca deux mille onze lañ waxoon ne am na barab bu daan kenn waxtu ne ñu koy omal bu kaay waaw d'accord dañu ko omal yàlla mais ñeneen ñi ñu ngi ci yow xam nga ne dañ leen ko ñu dem ñu laaj ko rey ko ci kaw lii mooy maan waaye àq loolu gurgoo lu baax ndax yàlla réew mi àll rek en général tontu moo tax mu koy daal moo tax ku fi dëgg daal si dëgg la dina war a bu ñu dëgg ndax bu ñu nee ñi doon rek day daal nit yoonu mën na cee bañ rek waaye mën na yéer yëpp yàlla na yàlla ci yàlla na yàlla mu seen ci ñii yéer yëpp mel buur yàlla amee na مالك الملك yàlla mooy maalil mulk moom moom neex jox bi daf ne tuuti danaa jox danaa neex bu koy nangu mu ne tënsi mu koy bu koy nangu seen seen comme malakul moom mu ngi dundee ba xool ku gëm ci jëm jëm nasaal ñu ñu am tuuf daa daa daa daa moo ko biir Ibrahima jox ko ndax law daamat li xayrika maa wasalat bu saxoon ñeel Senghor ab jur bu nguur bu saxoon ñeel ab jur ab laa bu saxoon ñeel ak sa ak sa tamit daf sax ju sax ñeel gis nañ ñu ne français ah, naan xaat mu rafetal ba mu rafet wax dëgg yàlla ngeen di wax yàlla moo gën frontière yi ak yoon yi nga xamante ni dafa am dañ yàlla dimbalu suñu àttekat yi ñaan jubal yàlla yàlla xiir ci ñu jublu seen situation Sénégal xiir léegi nga yàlla lool te bëri te yi ñëw ñëw ko waaye ba ñu seet ñu koy leen ma ñu leen nit ñu am sensation ñu koy tudd des fois rek ñu leen di ñaaw sax nañ fa loo xam ne yow da ngay xalaat mbir kii nan la mën a dencee ci jafe man wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin ba saxaaba yi kii man yaa rasulallah ne man laa ci am ci jaamu mu ne billahi yow yaa yow sama sama billahi yow yaa billahi yow yaa saxaaba yi ñu bal mu ne ku tëjjal rek reer ba rek sa dëkk doon jangan pak, yun pak, pembicaraan senior di tulisan makin pak, kembali juga. Mungkin kalau sebiji besar, mungkin sendiri minjem kalian sendiri dari Senegal, Australia, kita dari Senegal, dari Senegal, siapa yang punya yang dulu ñun Sénégal yi ñun même maanaam Sénégal yi day doon mais xéw yi ne ci réew mi waroon nañ wéyal jot ñu yëg ñu benn bopp la benn son jox am xaj nañ ci xaj nañ ci mais cinquante personnes ñu nekk ñu ko rek ñoom ah lii nag mooy indi ndóor ndóor mooy indi nit am soxla def ay wàll jël lépp ndax mbir yi boobu léegi arab sax ndax 250 doo ko dégg ci biir arab doo ko dégg parce que lan mooy bu ñu demee wax seen seen seen léegi yow léegi léegi dañu ko nii nii nii yéen seen seen waaye jarul nga ne ah ñëw mën ko maanaam mën nga fi am diplôme bu nga fi am xalaat bu nga am mooy loo ko financé ñu jël ah xam nga dañoo wax ne doomu aadama suuf rek moo mën a feesal biir suuf bu demee ba ci bàmmeel ba biir bi toj ba suuf si sol ci ba mu fees loolu rek mën na fees mais lu dul loolu bu amul xel te suuf ba bàyyi te am na fii ñoom am suuf lañ waaye am na doole pour la am njëriñ nañ li ñuy denc li nga ne yëpp ni suñu wala fekk ولا ينفقنا في سبيل الله فيشفي اذى يوم تكوى بها الجبال وجنوب وظهور هذا ما كنزكم لانفسكم ويوم ما كنتم في قبل الجرقوع في الارض ديكو رنك rënd muy denc bañ ko jox te duñ ci dundale ci yàlla seen million doole ñu jox ñu jox leen ci dëggal leen ci mbugal lu tàkk moo xam ne man yàlla dinaa am lu mu bés pénc yàlla mu ne dana convoqué seen xam-xam ak seen côté yi ak seen gannaaw Cheikh Ibrahima mu ne lu tax yàlla tudd ñetti place yooyu mu ne ko am dara su miskin bi ñëwee ci moom di ko sax may tey kanam koy xeer kañ miskin yi tamit ñu insisté ñu boole miskin circulation di la laajee ngeen ñu insister boo insister da ngay wan wan wan côté maanaam bëggatu laa gis du mooy gañu bu njëkk bi mooy làmb bu njëkk bi moom di ak ci baax mais colloquer seen carte maanaam ñu doon leen ci colloquer seen carte bu juróom ak seen côté parce que da ngaa def nii du mooy mu

ngir foog ne joxe dafay wàññi alal joxe dafay yokk alal riba mooy demee alal yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat riba mooy demee alal sarax ku foog ne li ñu def dafa màndi yàlla boo ko yóbbu yàlla leen yàlla xëy daal yombal bi xam nga te généraliste Sénégal bu yaatu Sénégal bu frontière yi Mauritanie ci ndax Sénégal bu frontière Gambie Gambie bu frontière yi Mali frontière yi ñëpp Sénégal loolu lépp rek lu baax lu mel bu war a centraliser ci Dakar da ngay yàlla dimbale xiir nañ mën a dimbale seen fël ndax man gëm naa bépp président boo xam ne toog na fi doon teg ay mandat ñaar su servir les peuples nit ñi bëggee mu koy def sax peuple bi ngeen di soxla wu ñu nekk naa lii wala constitution bi ñoom loi bi wax yëpp nga nekk lu ñoom ñooy dugal neexal leen defal leen di bëgg yombalal leen moom génne dina la doole doole te pour yokk doole assemblée nationale buñ génne dafa doole doole doole noonu la ku am xel doon ko war a def waaye forcé jël jël dara yàlla leen yàlla yombalal daal teg leen ci ci ci tëgg bañ xam ne lii mooy dëgg ndax Sénégal jàmm rek lañ fi xeex jàmm rek lañ fi xeex bu dee ne doomu Sénégal yi mën naa jógee lii alxalifa Cheikh Ahmadou Maam Cheikh Baye Niass waa Soudan foofu comme ngeen di wax na sans saal mais président Soudan bi moo ko wax ne xeex bi fu mu nekk ñu fa ëpp sa ay taalibe Baay moo tax ñu ko nekk ci ñoom ba mu demee mu dajale ñu ñëpp ñëpp ci loo xam ne ñu bëri jéem nañ ko mënul ko ñu ngi leen dajale ba mu am ñoom ñu jëm ñu mën a ba jàmm ñi nga xam ne tamit dañu leen di doon jur politique wax la ci bàyyi leen ñi jot seen liberté bu dee na nag ñoom Sénégal ñoom ñu ngi kon kon bu Sénégal yi nekkee ñoom di xeex seen seen ñële sax danañ laaj ah kii mission bi doon si xanaa ko ko dëkkal donc loolu yàlla na ci yàlla musal yàlla na ci fitna yàlla na musal ci xayma yàlla na ci ci lépp loo xam ne maanaam na yàlla defal jàmm te mu sax te mu wan ma lu ne jàmm la te may laa sant boole mag ñi nga xam ne ñooy dund jumaa di ñaan yàlla ñaan yàlla may kattan ak wér yàgg waaxu di dund jumaa yi waaxu seetlu su kër ndax yooyu yëpp ay tiyaaba la yoo xam ne yàlla dafa ñu koy épargné foofu ci moom ba keroog bu ñu ko tegalee rek ñu xam ne wax dëgg yàlla suñu jéem yooyu loolu xam ne yàlla sax الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني